sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad mbokki Kun Fayakoun TV yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen ba xaq te di leen ko baalu yéen ñi nga xam ne ni yéen a seetaan si canal bi ñu ngi leen di invité ngeen abonné te bés cloche bi nga xam ne vidéo bu ñu def ngeen mën ko am si sensé seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad moo leen ñëwal tey si waxtaan woo xam ne dafay am solo lool si. way dencante ñaar ñi nga xam ne dañoo bëggante wala ñaar ñi nga xam ne ne jëkkër ak jabar la wala ñaar ñi nga xam ne dañoo bëgg def mariage nga xam ne ñu ngi ci projet pour wàllu sëy mooy li nga xam ne ne nag mooy noob ak li nga xam ne mooy jubóole ay nit ban doon benn anta lii bu leen xasee ba jubóole caaxaan dootu leen dindi ndax bu xasee ba seey rek seey na yéen ñaar moom seen diggante moom ala kulli xaalin diggante boobu faaw ba abadan waaw diggante boobu ñi ngi koy defar bisu vendredi muy bisu ajuma waaw nopp bi nga xam ne bisu àjjuma lañ koy bind bisu ajuma bi nag ñu ngi koy bind ban heure muy onze heures bu jotee onze heures jàpp midi bisu àjjuma onze heures jàpp midi nga toog sa biir néeg bu fekkee man nga bind nga bind lii ma wax baatu fa jalasa faala ak jiin ak laam ak saat faa jiin laam ak saat léegi saat gi ngay yaatal fa baatu fa jalasa nag danga koy bind vingt muy fois muy ñaar fukki yoon nga koy bind nga moom nga koy bind boo paree nag nga yaatal saat yi yëpp boo yaatalee saat yi nga def si yow ak ki nga bëgg mu top la wala yow ak ki nga bëgg mu déggal la ak wala yow ki nga bëgg mu jox la bopp nga xam dootul am jàmm nga fexe wut loolu boo wutee loolu ba pare nga wut mburu boo bindee loolu saafara ba pare bu la neexee nga xooj saafara bi tuuti rek baax na mu doon tuuti nga wut mburu daggate mburu mi def ko ci boole ko lu mel ne repas wala yaa xam bu dee yow góor yaa bëgg jigéen gi topp la na nga fexe ba jox ko xar buy nàmpal noonu xar di toppe doomam noonu lay toppe ak foo mën a nekk nag ak réew moo mën a ne na nga fexe ki nekk fii joxal la ko xar mu lekk boo demee ba nga xam ne ne amoo xar mu lekk loolu na nga fexe wut ndawal yàpp nii nga fexe ba jox ko xaj mu lekk ko noo bëgg noonu la da koy toppe te loolu ala kulli xaalin dootul dañati kooku moom nob yu am solo la moo tax ñu indi leen ko tey fii si Kun Fayakoun TV wala nga bind wa alxaytu alayka mahabbatan minni may nañ ko ñëpp boo ko bindee neuf fois nga doon yaatal miim yëpp def si tuur yi boole koog ñoo xitu mburu mi nga saañ ko si bopp bi suur ko fuy tooy ba xasee ba napp fu mu mën a sa jabar bu demoon sax day ñëwaat waaw koo ko def tamit noonu la lay toppiwaat kon nag ñu ngi leen di siyaare baax di leen wax daal ngeen abonné si kanaal bi te ba scroll bi nga xam ne vidéo bu def ngeen mën koo am si sensé seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala Muhammad